un jour mu daanu xawma lan yàq ko musiba ak melengaan moom Thierno seen jafe-jafe commencé ci ay ñoom ñu génn di toog ci seen émission di ko commencé di ko yàq mm-hmm. moom ndaw si itam ñu ne moom da ndaw si dañ ko traité benn théâtre kat mm-hmm. ne ndaw si daanu yi mu daan daanu yëpp du dëgg ay théâtre la te fekk na ñoom ñoo ko fay ne ko del daanu mm-hmm. euh, léegi nag ñoom commencé ko wili ci seen i plateau di ko yàq musiba ak melengaan moom tam mu ne aca comme da ngeen di wax man itam damay génn ma léegi luy problème bi ba yu mel noonu di xew en tant que ñoo xam ne c'est des c'est des c'est des hommes publics c'est des marabu euh, lii nag dafay bëgg a dëggal yenn saa yi ne ñenn ci charlatan yi ñu ngi fii hmm. di teg ay deal ak seen équipe hmm. di di di escroquer gars yi te yëguñu sax ni xew hmm. man euh, Alioune li ma ci mën a wax sànq bi ma ko seetaanee euh, dama ni lii mënul nekk sama xalaat bu gàtt man dama ne lii mënul nekk parce que. waaw gëmoo ko tam. gëw ko parce que ndaw soosu euh, dama ko faa fekk. xam nga yaa ngi rappelé wu am na ay jamono ma daan ma wàcc fii di ñibbi sama chauffeur bi Ousmane ni ma na mu lay mooy wàcc ne ma ne ko xaaral ma dem jël ko quelques image daa di daw jéggi jéggi jéggi passerelle bi daa di daw dem sécurité yi di ma téye moom ci boppam ñu ne ko Ndeye Gueye la ak ma yor sama caméra sama portable laa doon filmer ma ne ça fait l'occasion sax ma xool ba xam ne nit ñi di wax dëgg la am du dëgg ma ñëw mu yéeg dafa dugg si rek teg benn tànkam xam maa looy woo di la ko wax nit ñi di daanu loolu kenn nettaliwu ma maa ko filme maa ko gis mu ngi nii sama portable nit ñi di daanu muy am nu muy defanteeg ñoom ba ñu yéeg ba ci kaw ndaw soosu tey nii moo ma daan moo ma doon wax gis nga man ne ko am ah, man de lii ku ma ko nettali woon duma ko gëm lii maa ci tegal sama bopp sama bët maa ngi koy wax ci reportage bi sax ndaw soosu moo ma doon wax ni ma dëgg la lii dëgg la am na lu ko yàlla may am na lu ko yàlla may. man ma yéegaat ca kaw gisaat la même chose ndaw si moo doon reporté di wax ak man di ma laaj ma di ko tontu ma ne ko man de li ma gis ni damaa jaaxal ndax ay nit yoo ñii ay rappelé moo leen dugg ñu ngi daanu kon Thierno Moulay Faye Sow li ma doon dégg ñu naan day fay ay nit maa ko wax ci reportage ci kanamam wax naa ko ma ne ko nee nañ ma woon da ngay fay ay nit ñuy daanu maa ko wax parce que man ma ragal wax nit ki toog fay jooy. benn gel bu doon daanu tël sama portable mu wadd mu toj iPhone 11 Thierno Moulay ñu pare mu ne ma dinga am téléphone wax taalibe mi utal leen ko téléphone iPhone 13 taalibe yu utal ma iPhone 13 ndaw si ni ma Thierno Moulay lu mu wax da koy def ndaw soosu. kii wax nii tey waaw. ñu utal ma iPhone traise bu mag la ak bu ndaw yenn détails yi sax duma ci yegg man iPhone 13 bu ndaw ba lañ ma jox dama bëgg mu leer biñ may jox iPhone 13 bu ndaw saa nga toog bu ndaw bi jël beneen iPhone 13 bi nga xamante ni moom lañ ma jëndaloon moom lañ jox jabaru Thierno noon noonu mu rek parce que dañuy waxante dëgg rek ndaw soosu tey. bu génnee taxaw wax non damay tiit parce que bu fekkee dañ ko fay moom ndaw soo su fekkee dañ ko fay mu ne ñooñu duñu wax katu dëgg gi seetaan naa ko mu ne duñu wax katu dëgg xanaa kon moom kon ci la bokkoon ci complot bi la bokkoon nañu waxante dëgg ko quoi su fekkee complot la elle est complice parce que ñaari at yaa ngi yaa ngi ànd ak ay nit ci benn affaire ñu di la ko defloo man pour man bu ngeen di liggéey ba lépp ba coow am ngir yàlla bu leen weerante kenn ku nekk na nga xam li nga xam rek te noppi du dëgg waa kër Thierno Moulay bu fekkee ñoo génn di ko xas teguñu ko fenn parce que liggéeyal na leen liggéeyal na leen te dafa mën liggéeyam mbaa xam nga loolu ah. elle est professionnelle kooku na ko Bamba Diop jël sax nag liggéeykat piir la ba pare bu waxee dañ koy déglu est-ce que dégg nga wax ah, kon na ñëw bu waxee dañ koy déglu waxkat la nañu bañ a weerantee nañu bañ a weerante d'accord man man man kenn nettali ma man damaa fekkeel sama bopp man kër Thierno Moulay man. mais nag ñee ñoo commencé moo tax mu fay. man su ma déggee ne affaire yi dafa am ay fayaatee ay daanu mais ndaw si keroog bi ma ko neen dañuy fay fi dana ma loolu amu fi mu ngi may xam naa dina ko seetaan ci kanamu Thierno Moulay kon tey du ñu toog tey ba liggéey bi neexatul rek ngay ngeen di génn di yàqante. xam nga loolu rafetul. ci ñoom lay kii xam nga euh, Aliou mhm. Thierno Thierno mu lay saw xam nga ko bu baax man nag dama koy gis nii rek des fois hasardeusement ci ci ci ay vidéo yi Thierno ñun ñoo dëkk jàmm gën d'accord kon yow war nga ko xam waaw muy ànd ak algaasum ndaw si nag algaasum la doon waxal. xaaral xaaral. Ah. Hmm. muy ànd ak algaasum ñun waa jàmm gën lañ cerno waa jàmm gën la xam nga man dara jaral ma may fen hmm. du dëgg hmm. cerno si la ko affaire yi tàmbali di dugg bi mu ko tàmbalee di dugg si la bàyyi gaa yi foofu yaa ngi dégg di def ay affaire am di ñaan yaa ngi dégg nekk ci ñaan yi di ñaan jàmm gën la ko nekk di ñaan du dëgg Cerno ñëw fii yaa ngi dégg di ñaan léegi ma jox la benn exemple bu ndaw Cerno vidéo bi mi ngi fi ñuy wax ni xam nga kenn mus naa daw mu ne Cerno day teg ay dil kooku raamaat ñëw ni li ma doon wax ay nit ñoo ma fay. ñoo ma fay ñoo tuuti. ay nit ñoo ma fay booy bu góor la ay nit ñoo ma fay may wax lii ba Cerno mer ci kawam. ba ñun ñi ba ñenn ñu mën a wax ak moom yëpp ne ko comme moo wëlbatiku woon di wax. Mm-hmm. wëlbatikuwaat ñëw ni li ma doon wax du dëgg. léegi kaay ma jox la repère bu lu gën a gaaw. Cerno dafa dem Kaolack mu dem ci xalifa général bi ko nuyu ko jox ko kaamil xalifa général bi jël ko mu ne ko damaa bëgg a dem ca stade ba pour faj ay rab xalifa bi ne ko demal mu dem ca stade ba di yuuxu nit ñi di ñëw di daanu ñooñu da leen fay. Kaolack ak ñu may dégg. Mhm. na moo def loolu laa wax de. Mhm. waaw kon léegi femme bi su nee cer na da koy fay man affaire bi dafa may jaaxal Kaolack laa wax. loolu la ba la dem ci stade bi. xam mosoo ko seetaan wala mosoo ko seetaan. am na gën a garaawe nag. waa xaara si stade bi la dem ci stade bi mu demee stade bi am ñu nekk ci tribune yi da xam nga maa gis maa gis laa la wax de. waaw vidéo yi amoon na sax. man dama nit maa gis yaa ngi dégg léegi Thierno dafa yor micro bi taxaw ci digg stade bi di yuuxu nit ñi di jógee seeni kër di ñëw di daanu ci biir stade bi. man damaa gis man tamit kër léegi. kon léegi Thierno nan lay fayee ndax bu bi bu fekkee Thierno da koy fay bu dee dafa nekk ci Thierno di sonnal Thierno Thierno dina ko jox am na wala amut ah, dina ko jox mhm. yaa ngi dégg. mais ñam ña doon daanu ca kaw la mu def di yuuxu ci stade bi di am na lu muy tari bu koy tari nit ñi di daanu nit ñi di daanu. maa ko gis kay Cerno def ko guddi gi ba fajar mu ñëw tàgguwaat xalifa bi jëlaat oto yi ñëw kon Cerno ñooñu doon jóge seen kër di daanu fan la leen Cerno di fayate Cerno xamu leen. moo jaaxal ñëpp man de wax dëgg yàlla. lu toll ne xale bi ko. ma waaw ba pare Cerno mu lay saw ma wax la dara. voilà mhm. mhm. damaa wéet ak moom. wéet nañ man ak madame Diop may mu mbay mu ndox waaye ndox bu sedd s'il te plaît ah, yaa ngi dégg wala dégguloo ah. dañoo wéet ah mm-hmm. man ak Cerno ak Algasum ñoo wéet Algasum moom nit ku baax la Algasum ba Algasum bi muy xale bu ndaw ñun waa jàmm gën lañu yaa ngi dégg Cerno waa jàmm gën la yaa ngi dégg dañoo wéet mu def lu rëy mm. waaw sama bépp ma may. madame Diop may ñu ndox waay. man kenn ginaaru kenn nenu ma. kii sax Thierno jox na ko iPhone 13. waaw jox nañ ma moom waaw xaaral Thierno musuma jox iPhone 13. dëgg yàlla jox na ma iPhone 13 yaa ngi dégg musuma jox dara. yaa ngi dégg mais dama ko xam laaj ko ba xam mus naa damay ñëw këram di lamba benn bés lañ ñëw sax ma ñëw di jël si mu ne ma am na lu ñu la war a jox ma ñëw di ko jël si nga woo ma téléphone ma dem du noonu man du ma waxal kenn loo xam ne gisuma ko sama hmm. bët bu ma ne stade bi laa wax de dafa fees dell vidéo boobu après bu ñu ñëwaatee dinaa la ko indil léegi pour ñu teg ko waa topp kaa ñu xool ko parce que il est temps man samay vidéo man man ah. naa ko xool sama téléphone ma wan la ko parce que man kenn nettali ma maa ko gis loolu yow li nga doon filmer ñooñu di daan lu ndaw la dafa dem kaw la dëgg yàlla loolu moom gis naa ko dafa dem kaw la wax dëgg yàlla nag xoola bant lu mu yàgg-yàgg ci biir ndox du soppali ku nekk jësit man man pour wax la man man taalibe baay laa yaa ngi dégg mm. man taalibe baay laa yaa ngi dégg waneel ma njëre waay waneel ko yaa ngi dégg bi mu demee ba bi mu demee eh, bi mu demee Kaolack Kaolack la dem Kaolack Kaolack xalifa général bi xalifa bi la ñëw yaa ngi dégg mu dafa dem ci xalifa bi dem ci Mouhamed Niass eh, xam Mouhamed Cissé xam nga ko du mooy rakkum imaam Assane Cissé. ku si nekk mu jox la sérité tàggu la dem ca stade ba di wax li muy wax nit ñi di ñëw di jóoru waaw. c'est kay affaire yi kay xam nga lan la. femme bi boo fa nekkee corno boo nekkee si moom day yëkkati dara jox la du dëgg. man de wax dëgg yaa ngi dégg léegi yow bul dem rek nga gis ni neexootoo ak nit yaa ngi dégg. Mm-hmm. ngay ngay génnee ay wax xam nga sëriñ si. am na sëriñ yu aay de. bu lool sax kay. léegi Thierno ba mu démarré ba léegi ñaata at la Aliou. kenn mus ko dégg wax dëgg yàlla. man de yàgg naa ko gis ci ay vidéo. xoola ñun ñii ñun ñii ñun ñooy nelaw léegi dafa am sëriñ yu xam ni bañ commencé ba léegi ni mu yàggee bu dul woon dëgg est dina ñëw ba léegi. man na xaw ma ko moom mais damay gis ay vidéo. ah man de moom wax dëgg yàlla xam naa ko. cerno waa jaama gën la ñun waa jàmm gën lañ. cerno biñ koy xam ñun. boobu yaa ngi dégg yow de koo wax ne xam nga ko mën ah man xam naa ko bu baax xam yaayam cernu ñu dëkk yow doo nitu cernu ñii ñëpp bi ñuy xam cernu après lañ xam cernu man da xaw ma ba léegi nii sax yaa ngi dégg waaw man mais cernu ñun ñoo dëkk waaw yow mi dëkk ak moom yaa ngi dégg xoola booy nag xoola booy ba nekk mag ku ko topp danga ko topp nii rek mais cernu ñoo dëkk ba ko kenn xamul laa wax kenn kenn kenn kenn yaa ngi dégg waaw bi ko affaire yi duggee yaa ngi dégg fi la commencé di def ay affaire am ñaan gi jàmm gën la ko commencé di ñaan théâtre yu njëkk ya njëkk njëkk ya. xam naa da ngay dégg sax nit ne jiw <coughs> war nañ ko yóbbu ci Thierno Moulay maire Fatma Mbuub di ko wax. am na émission boobu rafet fii ci almadu bi feebar. ca temps booba laa wax de booba kenn xamagu ko dañuy jël ko feebar yóbbu ko ci mu Thierno Moulay mu Moulay faj ko gis naa ñu mu faj mun naa laa indil ñu mu faj ñu topp fii. waaw Thierno dama ko xam. man tax dëgg yàlla yow Alioune Keroog. waaw Thierno daal dama ko ah, man man laa wax. gis bi mu wàccee oto bi man kenn nettaliwu ma. xam maa la koy wax nii. maa gisal sa bopp woo naa Jimbori di ko wax. woo naa madame Diop di ko wax gis nga Keroog mu ne cëpp tànkam ci buntu ci buntu kër gi. ci buntu kër gi. Mm-hmm. di def nii di wax ci la ñu ci biir commencé daanu. ndaw soosu moo ne ma dawal non paa bi mu am na benn paa bu ne ma dawal nga xool rek ci biir. lii lii du ay du ay caaxaan tànkam laa la wax da ko teg rek nit ñi commencé daanu. Euh, loolu kenn nettalu ma ko maa ko gis man. maa ko filmé it. Aliou ma waxaat la dara Aliou dama la bëgg a waxaat dara. est-ce que Thierno est xam nga Thierno lu muy def nii mën na ko bàyyi est-ce que xam nga loolu. mën na ko bàyyi. mën na ko xaw ma immeuble cinquante xaar non sax waxuñu waxu immeuble. Mm. ñun ñii ñun ñi dëkk ak moom ca jàmm gën. suñ dogoo ñun ñëpp dem ne ko nangam da koy def ah. xam nga waaw ma wax la dara de ma wax la nag li hmm. coow liy bëri mosumaa hmm. toog fii ma wax la dara ci Cerno mosoo gis ma wax la dara kii a wax tey yaa ngi dégg Cerno hmm. ñun ak moom ñoo dëkk jàmm gën ñun waa jàmm gën lañ ñun fa juddoo fa lañ yaroo fa lañ màggee man sam-sam laa dëkk fa laa sam-sam un fa laa juddoo falaa laa yaroo fa laa juddoo fa laa fa màggee dem yaroo ji gàmbi ñëwaat Cerno dama ko xam fooraa la doon nekk nekk booy yaa ngi dégg ñun ñoo mag Cerno nag wax dëgg yàlla mais ma wax la dara ci Cerno ay junni junni la wax de hmm. du ma tudd lim moo leen di jox moo leen di jox ceeb diwlin ak dépasse ndeysaan ci li muy dem ma wax la dara tabaski gi ay junni junni nit Cerno moo leen di jox xar jàmm gën nag bàyyiwul kenn ñi mu àndaloon démb ak bërki démb ma ni ñi mu àndaloon démb mhm. ñu ànd ñoom di fanaan benn néeg mhm. ba tey ñoo cernu xaritu yaayam yi xaritu yaayam yi mhm. ba tey ñoo cernu c'est que bul am na ñu bëri luñ bokkul dañ koy jéem a yàq ñëw ma fii nag pour défendre cernu de cernu yorul sama kër mais cernu dañu dañoo judd bokk fañ juddoo màggee fa bu defoon xoola bu defoon lu xam ne du noonu salaatu faatihi dinaa ko wax. Aliou kaay daa jeex. mais dama ne la cerno dama ko xam tey laa la ko mos sa wax nit ñi dañuy wax cerno rek ma noppi mais xam nga damay noppi rek di xool mais cerno ñun ñoo dëkk jàmm gën fii mu ñëw après la fi ñëw yaa ngi dégg jàmm gën la commencé di faj. cerno ba mu commencé dafa doon faj suñu kanam ñun. après nag xam nga nit ñi tamit léeg-léeg da gis ko xam ni day gis ni kii kat mi ngi faj am na taraanga rek ñenn ñu dem ci télé yi di wër di wax cerno cerno cerno xoola cerno ñun ñoo dëkk ak moom yaa ngi dégg su fekkoon ne yii mu nekk ay caaxaan la xoola du yegg si fii li li muy def noonu am na lu mën de yaa ngi dégg ba pare xaalis bi jëlu ko lekk ko bàyyi nit ñi day dimbaliwaate. eh boo bëggee affaire bi nga defaat ko topp kaa bii di ñëw ma indil la nga teg vidéo yi ñu xool ba pare man chaque jour ma ne la Aliou war nañoo ñëw ci Sénégal ñu ñu fexe lijjanti ñi mën ak ñi mënul pour coow li jeex. loolu de lu mat a wax la moom. parce que tamit gis nga kaay ma wax la euh, benn affaire pharmacie bu amul kayit nan lañ koy def. waxal lu tax ñu koy tëj dañoo bañ mu joxe garab nit di dee sëriñ bu xamul dara moo pharmacie bu amul kayit ñooyam mais Thierno mii xoola yàgg na ci nii de femme bi bu ñëwee mu wax ni Thierno daf ma doon fay may daanu da daf ma doon fay di ma roof ay jinne kon nangu na ni Thierno mun na koo roof jinne pour muy daanu pour muy daanu moom xam nga femme bi waxul ne maa doon daanul sama bopp dafa ne daf ma doon fay roof ma jinne kon ba tey waxul ne. Thierno mënul dara kii dugg nii kii message nii daa mel ni dafa fekk ki tojoon sama téléphone boo xam ne dëgg sootaan na ko ki tojoon sama téléphone bi moo ma doon menacé naan ma yow naa la rey yow dama lay rey yow. man daal Aliou. waaw ah. yàgg nañoo gis ko xam ne bu ñuy ñëw buy ñëw dañ koy yeew. jàmm gën la nekkoon jàmm gën laa wax de waxuma la tey mat na mat na loo lii ma lay nettali nii mat na vingt ans ci ginnaaw vingt cinq ans. ñee di topp démb ngay wax yow waxoo tey de démb ngay wax. démb laa lay wax de démb. booba mat na vingt cinq ans trente cerno dañ daan yeew nit booba la gën a nekk booy. dañ daan yeew nit indi ko mu yeewi ko faj la nga dem sa yoon wér kërëb. fii nii léegi la coow lu bari ko bu coow li baree moom. du ñu xam ne wala kële mooy kële ñun bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee fi mu nekk nii. dañuy rang pour ñu gis ko ndax problème man toog naa bi ma Thierno Moulé ñoo dëkk ak moom ma Thierno Moulé ndeysaan di di jox euh, iPhone bi ñu ma yónnee beneen bi jabaram ji moom ko gel boobu moo doon wax princesse moo moom bi princesse su Thierno Moulé Thierno du dóor kat de voilà man bu ma tëddee si bàmmeel sama loxo ndeyjoor laay laloo benn mbindeef muy dund si kaw suuf yaakaaroo ma waxal la lu dul dëgg bu ma demoon ci moom ne ko jox ma daf may jox laajal cerno ba xam mos naa di jaabante këram. yow moom loo wax la. laajal rek cerno laaj ko ba xam mos naa faa jaabante. moom nit ku waaw daf ma xam ma xam ko. yàlla seede boobu maa ngi théâtre hmm. ñoom algaasum di jouer ci man. algaasum ci man la doon jouer maa ko daan jàngal théâtre algaasum yaa ngi dégg mère Faat Mumbu di dem ca cerno mu laay. yaa ngi dégg ci beneen cas. loola de ah. nag soo koy yàq daal. foog nga laaj ay mbokkam. ba pare daa kanam incha ah. allah. loolu dinañ am benn plateau spécial ci concert casserole bi donc bu leen bouger yéen ñi nga xam ne nekk bitim réew su ngeen bëggee gis. tëgg mi fa muy tàmbaleek fa muy jeexee kër Ousmane Sonko kër Barthélemy Dias ak ah université Cheikh Anta Diop biir Ndakaaroo biir banlieue bi yoon moom